yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jullit yi mbokki taal bi ñu ngi yëkkati sunu nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak ci turu mboolem daayira Moukhaddamatoul Khidma te yéen ñëpp ngeen dugg ci biir ndax ci membre yi ngeen bokk di ko jubale képp ku ñu dégg sunu kàddu. te yëngu ci mbir mii moo xam ci biir mi nga nekk moo xam ci biti réew mi nga nekk nga la fekk di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di la baloo ak itam di la ndokkeel di la massaw itam ci jafe-jafe jamono yi nga xam ne ñëpp a koy dund muy loo xam ne lu bàyyi ko fa yàlla la mu teg ko jàmm ñépp ngeen tool natoo leen ko yàlla yàlla dëggal suñu ngëm ba man ko jàll ci jàmm suñu borom daal ko fi jëlee léegi ci barke Serigne Touba kon ñu ngi dal rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp itam loolu di wax ne eh, soññ ngi moom du jar ma ciy jëm ndax ñu wax ñëpp yàlla lool na kàddi soññ lañ wax mu mel ni koo xam ne da nga ko war a wax waaxu sil te boo xoolee sin ko sa kanam nga xam ne da nga ne ngéej dab ko yaakaaraan doo wax ne doo ko soññ te na ne ñëpp noonu la ñuy doxee ku nekk mel na ne xam nga li nga tax a jóg def nga ci itte te yaa nga ca boolewu ca geesu mooy doxinu sëriñ bi maa ngi doom te duma taxaw duma ma geesu sëriñ Tuubaa noonu loon mel na tam moom la waa da taalib noonu la ñuy ndax ku ne xam ne jamono xat na waaye li muy xat lépp murid ñoom dunduñu ko ndax xel mooy dund yooyu ak koo xam ne su xol sëriñ nga ciy dund yooyu doo ko bàyyi xel mel na ni nag xamu dal mi ngay gis ci mbooloo mi teew fii ak jot gi ñu am bay def lii mel ni ñoo ñu ngi dund sëriñ bi moo tax yëgatuñ jafe jamono te ku ne xam ne jamono jafe na waaye lii ne jàppoon na ne ren kenn du ko bàyyi mottale waxtaan waaye li sëriñ Abdul Ahad waxoon yëg naa ne àdduna wet amut waaye xol bu nangu moo gënte yëg naa ne nangu loolu sëriñ bi moo indi lii ndax kenn soñut kenn ku nekk da xam ne da nga xam ne waxtu ko daan def nekk jot na rek nga nekk ca muy loo xam ni xam ngeen dayo bi mu bi mu amee ci wàll yépp ci wàllu lislaam ci wàllu liggéey sëriñ bi ak ci wàllu ndigalul doomi sëriñ Tuubaa muy loo xam ne jeex na ko amatul dootoo ko am ndigalu xalifa sëriñ Tuubaa nag du fi jóg moom waaye ndigalu doomi sëriñ Tuubaa moom nit du ko am lii nag sëriñ Saliou Mbacke moo ko digle woon ba mu ko diglee itam booba ak léegi itte rek la ci nit ñi mas di def ni ko waxee léegi loo xam ne mu tablon ci lu yées million dem ba ci cinquante millions loola ku a xam ne ne ittee nga ci ak farlu ak bëgg ak pastéef ak yéene ñi ci nekk ñépp yàlla dogal lool noonu la ñuy doxee kon sëriñ bi nga xam ni moo tax ngeen di jëf te moom lu jaaw di jëf kenn ak moroomam te lam daan wax man day bu leen ma sant sant leen law bi bu leen ma xarab xarab leen law bi ana ko law bi mooy yàlla mu yett xol yi ndax man de ndax ma waay dékk ma duwel la kon sëñ bi lu ci waay to lu ci waay am rek fa la sa ndax moom positif lay jëf lay jëf leen teg noonu muy sa maam muy sunu maam yi ba ci ba ci jamono tey jii ku ci raw rek ci sëñ bi positif nga ci raw dara nag jógewu fi lépp a ngi fi la maam yi amoon lépp a ngi fi sëñ Tuubaa dara am demul mm-hmm. waaw benn goj nag lañ koy jukkee mu di positif mm-hmm. ku ko am rek na nga xam ne fa maam ñu àggoon bul doomal dara sa bopp ndax yàlla mu ko doon joxee ngi fi bakk suñu tool mi ko doon jaawaale mi ngi fi diw am na nangam du ma ko am bu bu kenn naw kenn na ko ni seet rek noo fexee ba jot ko waaw ndax kenn duxul dara sa bopp tey fa xool yàlla ak positif rek mooy joxe te yàlla mi ko doon joxee mi ngi fi sëñ baa ngi fi kon ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne kon mooy yett xol yi mu defal nu xol bu rëy ak positif bu rëy. ñu dégg ko sëñ bi suñu digal na ko ba nu fees ba duñ ba kenn loolu nag mel na ni yàlla te fexalu ci ndax ku ci nekk da nga ko doon ci say maam di ko dund wana ni loo doon nag e, yaatal ko yomb na xam naa gàccaay mooy mu wàññi ko te mel ne loolu këñ naan këñ naan ko yàlla ndax li sëñ bi wax li ñu wax léegi sëñ bi amul tànk gannaaw moom la ñëpp yi doxee muy positif bi moom ku ne xam ne wax dëgg yàlla wàññi ko bari na lool si <clears throat> jëf ji kenn rek taxoon ñu koy def muy sëriñ bi ci jaam yi rek la ko jëmale woon sëriñ baa ngi fi jaam ñu koy daan joxe itam ñu ngi fi yoon ma ko daan doxalee itam mu jox ko miskin yi allahu dana àgg ci ku yàlla dogal mu àgg ci yow xalaat yi yëpp xalaat yoo xam ne dañ ko def ba mu mën a yaatu incha allahu xalaat yooyu jënga ca feeg booba luñ ci luñ ci def tey bu ëllëgee dañu fas yéene yokk jéego mu jëm ci kanam kon nag yàlla suñu mën defal ñu tawféex bañ def ci yàlla rek tax ndax jëfi lu mu réeré ak lu mu tuuti yàlla taxut amul njariñ kon suñu mën tawféexal bañ li ñu ci yàlla tax tey it yàlla buñ ci gis suñu bopp ndax jëfit kër lu mu réeré waxtu woo ca gisee sa bopp rek jëf ji ñàkk su ma doon dafa soo dafa giijal dafa siis du bokk loo ko boole ak nit rek mu bàyyi mu bàyyi laa kooka te kooka amul fay su ta feexal ba def ngir moom te bu ko fee yàlla bu ñu gis suñu bopp lu def tey rek nañ ko weer na ko su borom fàttiloo loolu nag mel ne suñu tawfeex nuñ julli nuñ murit suñu borom fàggu doon ko ndax koo xam ne mën nga am leen jox ko sa morom te ba ko joxee fàtte nga ko loolu moom suñu tawfeex loolu moom suñ suñ tuwaa moo ko fàggul jéblu ku nekk suñu borom jox na xol boobu xol bu nekk ci murit ci joxe ci murit rek la nekk loo joxe fàtte ko ci murit la nekk dara jeer nga jox ko sa morom ci murit rek la nekk loolu moom suñ moon ko fàggul ku di murit ko nekk am nga loolu des muy nu sàmm ko ba dara bañ caa bañ caa mejj ñu ngi sant ñëpp di ñëpp di wax ne yàlla suñu saafara jàngoro yi ci réew mi ak ci biti moom dool noo aar su moom dool noo dool xel mu dal dool noo dool ba lii nu jàll ko ak jàmm ba di ko fàttaliku naan at mooma muy at moo xam ne kon ne yëg nga ne yokk nga ci juree jàpp nañ ne sax ñu bari jàpp nañ ne sax xëy na at mi wàññi ko lay jur waaye incha allahu taala raf yokk rek lay jur waaw incha allah fi jógee ay yokk rek kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon ñoo dégg nañ kilifa yi nga xam ne ñoo yëpp ak kàddu yu rafet yi nga xam ne moom la ñu soññee ci liggéey bi xanaa rek di dellu di soññ ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di ko jaarale ci sëriñ Assane Diop di leen xamal na ñoom daaw seen liggéey tolloon na ci juróomi million ak lu topp yoo xam ne ñëwoon na ci liggéey bi lii jëm si woon ci ndog yi lii jëmoon ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxoon na leen ko ñu di ko taxawu ci waa jumaa ji ak lenn ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir jumaa ji di fi liggéey bokk na ca daray kaamil bokk na ca eh, imaam yi bokk na ca noddukat yi bokk na ci jàngukaay bii ak fu bare bare foo xam ne sëriñ bi moo leen ci joxoon ndigal lim boobu ñu fi indi tolloon na ci juróomi million yoo xam ne million ba ci ndog yi la jëmoon la ca des ñu ko kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji yëpp ñoo it ñu ngi leen di soññaat bu baax di leen sant bu baax di jaarale suñu cant ak suñuy ngërëm ak suñuy soññee ci sëriñ Assane mi nga xam ne moo moo nekk ci bitim réew te limaale woon naa ko léegi ci bi muy tut jàng rapport bi waaye moom itam ñu ko jottali ne ko sëriñ bi nii la santaane liggéey bi wax na ne daal liggéey bi nañ ko daan defee nañu ko ni defee lu ci dul dajale mbooloo rek nañ ko def la ñu daan dajale mbooloo mi di leen ko jox man nañ leen koo jox ci lu dul ñu di leen dajale loola itam incha allahu fas nañ ko yéene defe ni nga xam ne noonu la ñu ko sëriñ bi digale di soññ sëriñ Assane di soññ mbooleem waa bitim réew nag euh, muy Espagne bu mu tuddee Espagne tudd naa Europe gépp France Italie Angleterre ak feneen fu mu mën a doon fu ma xam ak fu ma xamut Amérique ñëpp fii ma toog nii rek benn mbokk mu nekk Amérique di soxna sukkay euh, doon na ma léegi di laaj fu liggéey bi toll ngir mën a yónnee addiyam soxna su koy sàmm ak soxna maam jaara fay ñoom ak ñi nga xam ne ñoom la ndeloon te loolu agsi na agsi na uh, ba jot nañ ci naka noonu itam uh, Amérique latine Brésil ak Argentine ñoom itam daa nañ ci am taxawaay bu rafet boo am solo yaakaar naa bu ngeen xoolee ci paas yi nga xam ne moo def liggéey bi da ngeen gis seenu liggéey na mu ci tolloo woon rawatina ci wàllu suukar ak yaa ci aju kon nag ñoom ñëpp ak Afrique réewi Afrique yi yëpp bàyyiwuñ fenn li ko tàmbalee ci Mali gi ba ba ngay dem Gabon ba Afrique du Sud fépp fu mu mën a doon fu ab taalibe bi nekk la ci ñëw ñu ngi leen koy fàttali ñoom ñëpp di leen xamal ne liggéey bi ñu ngi ko fas yéenee ànd ak ñoom lii Serigne Affe wax léegi rek mooy li am Serigne Touba de ab taalibeem xàmmeewul nawet bu nangu ak bu gàntu ndax li ëpp solo moom la am te mooy xol yi nangu te xol yi nangul nañ seriñ Touba te duñ ko gàntul na ko Cheikh Abdoul Ahad waxee woon kon nag xol bépp boo xam ne. nangul sëriñ Tuubaa moo nekk ci biir la sëriñ Tuubaa waxoon moom ci ñi nga xam ne gàntoon nañ ko yow mucc nga ci te loola mooy xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna maaraamu walal baaba xolub ñi nga xam ne dañ ko won gannaaw nanguwuñ ko sopp day ci njaqare la ñuy dëkk te duñ daje mukk ak la ñuy sàkku duñu gis sax buntub la ñuy sàkku loolu luñ ciy mën a déggee mooy xolub ñi ko sopp waxtu wu nekk seen bunti xeewal ubbiku na seen bunti ndimbal ubbiku na seen bunti yërmande ubbiku na seen bunti yokkute ubbiku na kon nag nañ nii ko kilifa yi waxee léegi fu waay jëfe jëf ju baax baax na kum ko jëfee baax na kum ko jëfal baax na waaye jëf ko ci weeru koor jëfal ko Serigne Touba jëfale ko ko ci barab bii ah dal na mu xel lool de jàpp nañ ne leneen feneen fu mu mën a doon ni ko Baye Diop waxee léegi rek jëfe ko fi moo ko gën te jëf yëpp yi jëm ci yàlla itam joxe aw ñam bokk na ci yi ca gën bu ca gënut itam jàpp nañ ne sax ne moo ci gën kon nag ñu ngi ci soññi suñu bopp di ci soññi bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ñëpp waaye ni nga xam ne noonu la ko bokk yii soññeentee ci biir réew mi noonu lañ ko soññeentee itam ci bitim réew ñu ngi ñaan sunu borom mi nga xam ne dara tawu ko mu teggi mbas mi ni ko kilifa yi ñaane te ñu dajawaat fi ndegeen déwén kenn bañ a manqué te Serigne Touba nangul ñu liggéey bi tey e, mu ni ko Serigne Afia waxee léegi rek mu doon ak yokkute ba faw te benn ndog bañ cee topp ci barke Cheikhul wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon defal tawfiq